ñu dem ci euh, cocktail molotov dégg naa café Touba ko booy tuddee bu ñu sukkandikoo ci ministre Antoine Diome ca assemblée nationale élément ñu dellu si waat alors à partir de ce moment en toute responsabilité et dama ciy profité pour tontu benn question l'inculpation de Ousmane Sonko n'a absolument rien à voir avec la dissolution du PASTEF absolument rien à voir parce que parti politique association la nit bu ñuy topp ci yoon dañuy topp ci yoon te ba keroog yoon di ko daan dafa am li ñuy wax présomption d'innocence parce que loolu mooy yoon te loolu la loi tëral nan la nit mënee jël benn baat jéem ko def looloo xamante ni baat bi du looloo ko tax a jóg gis nga manifestation yi bu amee xale yiy taal xam nga nan la ñuy tuddee cocktail molotov café Touba maanaam bu ñuy dajale cocktail molotov wala ñu bëgg ko jëfandikoo dañ naan demal indi café Touba bi ku xam cosaanu café Touba xam lan lay jariñ nga koy méngaleeg yuy fat bakkanu doomu adama kooku boo jëlee beneen baat di ko utiliser neneen jàpp ni baat la boo xam ni dafa doon sa moomeel. Assane <laughs> hmm? euh, mi ngi noonu Assane euh, euh, ministre bi <laughs> nee buñ bëggee nii dama indi cocktail molotov bi dañ naan dem indi café Touba gi sa baay loolu la wax <laughs> waxee daal de café café de moom café ñu ngi luy ñu ngi sa baay ba waaye <laughs> waxal ñu ko ñu laaj noo déggee sa baay <laughs> noo déggee sa baay xanaa gërëm ko rek moom président bu Sénégal mën naa ni Antoine mm. ndax wax dëgg yàlla fekkee yàlla dëgg rek la bëgg fi mu nekk nii moom moo fi nekk moom si réew mi. Ah. Sénégal ba Sénégal président. mais di fàttali itam nee na lii maanaam tas parti Pastef jotewul ak dara ak jàpp Ousmane Sonko. ak jàpp Ousmane Sonko waaw waaw na tas daal pare woon na. waaw pare woon na waaw loolu ki yoon. waaw yooyu da am solo ndax wax dëgg yàlla président Macky Sall fi mu ne nii mi ngi nii kel nekk sa leneen moom mooy doxal réew mi moom euh, ministre de l'intérieur waaye li wax nii ginnaaw màggal gaa ngi ñëw dañ ko see war a sant baax Baye Fall yi fi mu ne nii war nañoo mën a jël seeni matukaay. ci lan buñ ne café Touba ñu prononcé. <laughs> màggal nit ñi dañoo bari te wóorut lii lii ah! bu ñu café ñu prononcé ah! màggal Touba gi bu ñu café Touba ñu prononcé mooy lan ah, boo doo prononcé <laughs> daw daa wóor ah d' accord. Ah, ah. comme moom lañ tuddee Café Touba. waaw ah. comme tel moo la def. waaw non bu ñu plongé ku may des. ah maa ma jaaxal yow bu ñu plongé wala ñu dugg ci kii wër Café Touba yëpp waaw bu ñu Café Touba nga ne gan Café Touba la ci. <laughs> waa sa baay ku ko war a wax loolu. ah fu mu xamee xabaar boobu. déet moom dafa informé woon nag moom mooy réew mi. noonu normalement ka ko informé hmm. sa baay da ko war a jàpp parce que kookaa nga woon seen biir waaw waaw kooku xam na ko moom ah? mais xañ na xañ na dañoo yoot ba dégg ñu koy wax mais en tout cas en lii moom euh, même kilifa yi diine yi bu ñuy laajati café Touba ndax ñoom dañuy ferankulaayu rek si seen seen seen rukk wala si seen yarandaay wala kii café café ah, café café de moom bu ko defee nag ñu dem indi kafe kafe gaa ngi ñëw te café nga toog di xaar café ab biteel ñëw bu tàkk loolu mu jibal ginnaaw café Touba gi daal mooy kof mooy kof yii nañ ci jëlaat ay matukaay ñu defaat communiqué leeral ni café Touba gi doonu ah ne ni moom ku dégg turu café Touba moom da nga tiit ndax ki ko wax moom du waxan non du waxan moo gën a informé ci Sénégal moo gën a informé wu Sénégal du waxan kon na fi mu nii sax bu ñu nee gars yi café Touba ngi ñëw fii solution daw leen wóoru café Touba kat am na tur kon nañ si jëlaat ay matukaay defaat si beneen communiqué xamal leen ni leen <laughs> café Touba gii lorewut day defar njariñ yi ndax si sëñ Touba ko indi woon sërica ah. kon nag café tur woowu mu indi woon sërica muy defar képp ku sa bopp metti sax boo ko naanee mu dal <laughs> mu dem ba indi loo xamante ni moom lañ ko tuddee muy lore nga xam ko sànni nga dee ñu ni ñu ñoom ñaar ñoom ñaar benn lañ bu ne woon café Touba sax ah, bu ne café Touba plus sax nga mën a mais café Touba net wala bu ne woon Nescafé wala mu ne Nescafé wala nen mais café Touba gaa ngi ñëw ah man de du ma ko xaar bu ma toogee si mbooloo dégg ñu ni café Touba gaa ngi ñëw ma takk jóg. pourtant démb man nee naa soxna si café Touba gi daa mel daa jeex de. ah yow nga maandu si café Touba googu yi de. Ah. waaw man de ku ma gis nga ni café Touba gaa ngi ñëw. non garaawul fii ak ñiy jiitu Touba ko naan. Ah, waaw na defaat communiqué rek xoolaat si. alaaji hmm. eh, ministre bi de bi ñu ko dégloo ci ensemble wax na ci parti Ousmane Sonko wax na ci yu bare nag. waaw eh, ak ci ak jàpp genre gi ko njëkk a moo ñu ko njëkk wax nee na café gi xale yi cocktail molotov bi moom lañ ko tuddee dañ naan dem lay indi ko café gi. waaw man nag damay ragal nag ñu indi ñu fan yi ay euh, jaaykatu kafe yu bari yu ñu jàpp. ah waaw xam nga yëpp wóorut comme que wutal nañ ko fu mu jëm damay ragal. Euh, est-ce que parce que li Assane wax mën nga dem ba jaay café mën naa bañ wóor waaye laa mën nañ la suspecté parce que mën nga nuru booy boo xam ne dangay ngay di jaay kafe mën nañ la jàppaale lu ne mën na ne waaw nañ ko linkee jaay jaay café nañu linkee café euh, kii bi mm-hmm. donc loolu il faut faire très attention ak tamit ñi naan kafe hmm. waaw jot li ma foofu ka ñu ne moom lay kii. <laughs> wóoratul de ne kii moo di indi café gi. <laughs> waaw indi café gi ah, indi café gi waa solution dañuy yor booy demal fële jënd café geeg yoo xam nga yooyu yëpp. mën ah, nañ la suspect nga léegi daal lay loolu. c'est parce que tey meew laa ndekkee de. demee bañ ne ah. café gi lañ linkee loolu. léegi yooyu mën na am yu bari yoo xam ne après day tegu ci yoon. Hmm. bu ñu waxee nag du kafe gee lay wax café gële lay wax. te donc loolu tamit mooy loolu boo jàpp nañ kii mu daal di yor kii ñu ne Café Touba la yor ñu dem ba. ak safar gi di ñëw mbir waaw yeneen mbir mu ne safar gi di ñëw dajaloo yeeg yooyu. ñaanal café booy café gi waaw indi café gi wala nga jox nit mu ne la may ma lu ñu jëndee kafe nga joxe ci mën nañ la jàpp ah, suspect waaw daan ne day participer ci kii café gi ñuy wax mooy café gële donc am na yu bari yoo xamante ni jarul woon communiqué daal ni ci communiqué nii lu garaal tey jii bu fekkee yow ay booy dañu taxaw waa may ñu luñ jëndee kat. waaw nga jox leen. Hmm. ñu dem taal. ñu jàpp booy ya. Hmm. Hmm. Ah ñu de ñu yaa leen jox lool. nga ne man de kafe lañ ma laaj ñu ne la mooy koptal. <laughs> koo ci waaw koo koy waxee. <laughs> ah, ah fooy kanam xam nga dafa am yoo xamante ni bi fi mu dugal nañu ko <laughs> loo xamante ni bi fi mu toll nii eh, kenn nekkatut ci waaw dëgg la de am lool dëgg la waaw wallaay wallaay sunu safar gaa ngi nii di ñëw duñ jëndee café koo ah. boo ciy joxe njëgu café yàqu nga ah léegi kon solution li mu naroon joxe njëgu kafe gi nag. ah mën a gi kay nañu xoolaat suñu koy taal rek ah? xool parce que mën ngaa joxe kii parce que ngay joxe loolu sax njëgu café sax ñu ne la saay hmm. yow mii yi ah. nga envoyé nii naan njëgu café booy moom lañ doon jëndee waaw moom la booy di jëndee loolu waaw da ngeen a créer pour euh, da maanaam dafa am yu bari yu mais ma jàpp ne sax loolu en tant que ministre bu ko xamee lu muy noppi waale la mais waruñu ko communiquer ci pénc voilà waaw loolu ma am yëpp ah, amay ah, secret ah. pour jéem a xool comme que ñu ngi def loolu. Hmm. am ngeen benn piste. Hmm. xam ngeen ñi koy def. yaa topp leen leen ci suuf topp foofu mais léegi bu ngeen ko defee nii ñu tuddee ko neneen. kon léegi loolu est-ce loolu tamit. Euh, andi leen paas màggal yi leneen li ci ne. mu ni euh, tas parti bi jotewul ak dara jàpp Ousmane. waaw léegi lu tax ñu boole leen bés. moo jaaxal waaw dañoo jàpp tas. Hmm. waaw lu tax ñu boole leen benn bés. waaw jàpp bi ñëwee Ousmane Sonko mandat dépôt lañ tas parti donc ñoom ñoo ko boole moo tax nit ñi. boole ko bu doon bàyyi nañ. Hmm. ba mu loolu wa ilaa ñu jiitaloon ko boobu Ousmane Sonko ngi fii ñu jiitaloon tas parti bi. Hmm. ñu xam ni kat peut-être li muy wax lool la mais bu dee danga leen a boole benn bés bi. Hmm. donc loolu am na lu muy signifier. kon boog boo ne boo ñëwee tey di ko séparer te nga taqale woon ko lu waral tey nga bàyyi ba tey nga koy soo a séparer yaa ko boole woon. wax nga dëgg de voilà wax nga dëgg